salaamaaleykum ñoo ngi leen baalu xaq te di leen ko baal ñaan yàlla mu dolli ñoo defal ak njéggalam ci barkeb sëriñ bi te di leen dénk ñu gën a góorgóorlu baax ci li ñu fi yàlla indee ci li ñu fi yàlla indee ñu fi loolee te mooy ñu jaamu ko teg suñ tànk ci jub. te wattandiku ay caaxaan akum fo. fo. képp koo xam ne nag. képp koo xam ne nag. nekk nga si àdduna topp yàlla. nekk nga si àdduna topp yàlla. te topp googee nga teg ko ci sunna si rasulullahi sallallahu alayhi nga teg ko ci topp sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallama. ay coono mënta ñàkk. ay coono mënta ñàkk. waaye say coono lu mu rëy rëy fii lay waaye say coono lum rëy rëy fii lay yam waxtu wu sag ruu saw yaram waxtu wu sag ruu génnee ci sa yaram nga dugg si nooflaay boo xam ne nga dugg si nooflaay boo xam ne dara lu koy naxal du ko rax dara lu koy naxal du ko rax te day ànd ak yow ba faaw te day ànd ak yow ba faw képp koo xam ne dangaa nekk si àdduna képp koo xam ni dafa nekk ci àdduna nekk fi am fo ak i caaxaan nekk fi fo ak i caaxaan ak lu neex bakkanam ak lu neex bakkanam mën na am luy nuru nooflaay fii ci àdduna mën naa am luy nuru nooflaay fii ci àdduna waaye waxtu wu fi jógee waaye waxtu wu fi jógee dugg si coono boo xam ne dugg si coono boo xam ne dara du ko jeexal dara du ko jeexal te day ànd ak moom ba faaw te day ànd ak moom ba faaw moo tax ak njub moo tax ak njub ak lu baax ak lu baax lu ko nit rek lu ko nit rek jar na lu ko raw jaar na lu ko raw. waaye ak njubadi akub safaan. waaye ak njubadi akub safaan. ku xam la muy jur. ku xam li muy jur. di nga xam ne lu ko nit jëndee jëru ko. di xam ni lu ko nit jëndee rek jëru ko. sëriñ bi daana wax naan ab jullit. sëriñ bi daana wax naan ab julit su bëggee mucc tey ak ëllëg. su bëggee mucc tey ak ëllëg. day boole juróom-ñeent. day boole juróom-ñeent. nee day ragal yàlla. nee day ragal yàlla. ragal ku ragal yàlla. ragal ku ragal yàlla. ragal ku ragalul yàlla. ragal ku ragalut yàlla. bàyyi ku bon. bàyyi ku bon. bàyyi lu bon. bàyyi lu bon. bàyyi fu bon. bàyyi fu bon. lu mu xamul bu mu ko wax. lu mu xamut bu mu ko wax. lu mu mënul bu mu ko def. lu mu mënut bu mu ko def. lu mu moomul mu maanu ca. lu mu moomut mu maanu ca. sëriñ bi daana wax tamit naan. sëriñ bi daana wax tamit naan. dee leen jaar sa ngir ma. dee leen jaar sa ngir ma. tey wattandikoo fital. tey wattandikoo fetal ndax kuy fetal fuy fii rek lay mujjee ndax kuy fetal fuy fii rek lay mujjee ngir mi nag mooy ak njub rek ngir mi nag mooy ak mucc ak ak njub rek képp ku sa jaar mucc képp ku sa jaar mucc ku sa jaarul nag ku sa jaarul nag sig jaaxle rek ngay ngay mujj sig jaaxle rek lay mujj sëriñ bi daana wax naan sëriñ bi daana wax naan bu leen addunay war si dara bu leen àdduna war si dara. ndax li muy lu am solo ñett fi ne. ndax li muy nuru nuru lu am solo ñett rek moo fi nekk. mooy lu mat a def. mooy lu mat a def. ak lu mat def. ak lu mat def. ak lu ëpp def. ak lu ëpp def. mu ne li a def mooy ak topp yàlla. mu ne def nag moo di ak topp yàlla. ndax dalay jariñ àdduna dalay jariñ alaaxira. ndax dalay jariñ àdduna dala jariñ alaaxira. mu ne li mat def moo di am fo. mu ne lu mat a def nag moo di am fo. ndax du la jariñ àdduna du la jariñ alaaxira. ndax du la àdduna du la jariñ mu ni li ëpp a def nag moo di ak mooy yàlla ni li ëpp a moo di ak mooy yàlla ndax da lay lor adduna da lay lor alaxira ndax da lay lor adduna da lay lor alaxira ñun ñi ak yéen ñëpp jaamu yàlla rek ñu fi baax ñi ak yéen ñëpp jaamu yàlla rek moo ni fi baax képp ku si nekk bu ko neexee mu dalal am xelam te rafet njort képp si nekk bu ko neexee mu dalal am xelam te rafet njort te xam ne la ko suñu borom bind woon mu nga sax te xam ne la tax suñu borom bind ko ma nga ca te bu faatoo la suñu borom digee te la suñu borom digee ku nekk sa loolee mën na ko koo jox man na koo jox képp ku sa nekkut nag képp ku sa nekkut nag ba yeboo mu tuub lam nekkoon bu yeboo mu tuub lam nekkoon te gaaw génn sax te gaaw génn sax te xam ne adduna daa jig jeex lool te xam ne adduna daa jig jeex lool alaaxira it daa dëgmal lool alaaxira it daa dëgmal lool daa dëgmal lool daa dëgmal lool te lam nekk woon fii fi àdduna lay fekki foofe te lam nekkee woon fii ci àdduna moom lay fekki foofee bu dee lu baax bu dee lu baax muy lu baax ba faaw muy lu baax ba faaw bu deeb safaan nag bu deeb safaan nag du jur lu may ab safaan du jur lu may ab safaan nag asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu